lan laa tojee dëkk bi Bamba daal li ñu waroon wax yëpp nga maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu euh, waa Dakar ak waa Médina ak euh, xarit yi mbokk yëpp daal. Mhm. di wax Pape naa ñëw ci moom parce que bon sama dañuy bokk gis ci lu bari daal. Hmm. Euh, <laughs> Bamba Bamba Bamba xalifis nga ba tey. non man du ma xalifis de socialiste derrière Khalifa Sall laa du ma xalifis de. nga ne socialiste derrière Khalifa Sall ok man yàgg naa ni. Mhm. gëmuma nit ay valeur laay gëm ci nit. valeurs yooyu bu dañee ci moom ma dañ ci moom man duma gëm nit man ay valeur laay gëm ci nit parce que façon boobu laa parce que xalifa Sall dañoo daje ci kaw dafay militer may militer. Mhm. mu am yoon ma am yoon. Mhm. mu def plus de vingt ans au PS mu def plus de vingt ans donc moom dugaluma PS donc mais li mu li mu lim ñu tegal ni fa la jëm daf maa doyoon sëkk li taxoon ñi ni ne fi ma baleen fa topp ci gannaawam lam ma woon moo ma doy li mu ni fa la a jëmee Sénégal moo ma doy ba keroog may gis leneen ci moom. moo tax man ay duma xalifiste ki tanoriste juifiste non man je suis un socialiste pur et dur ndax boo fekkee da nga nekk un laministe ak un xalifiste bu ñu fi nekkatul wala ñu dee dootoo milité da ngay wër leneen hmm. mais tant que parti bi comme que les hommes passent l'institution demeure parti baa ngi fi vertu yaa ngi fi non parti bi su ma naan parti mooy jamono yi nga xam ni PS. Mm, mooy joxoon ma exemple foofu ndax la fa nekkoon nekkatu fa n'est-ce pas. wa la fa ah nekkoon non la nekkatu fa léegi moom ay douzième gaynde lañ waa Kër Macky lañ mais de façon socialiste la. léegi parti ay douzième gaynde lañ. ah oui bien sûr ñoom pratiquement li Macky bëgg a wax ñoo koy waxal. du ñëpp nag mais li ci ëpp li ñu parti bi du ligne bi ñu bëgg ci parti bi man ligne bi ma bëgg a dégg ci parti bi mooy parti da koy créer pour la conquête d'un pouvoir ou la reconquête d'un pouvoir mais parti mënoo ci nekk taf ko ci gannaaw parti nit koo xam ne doo ko mës a jiitu day jiitu da nga topp ci gannaawam loolu taxul may milité ci parti balaa caa ma milité ci parti kooku. Mhm. parti bi may bëgg gëm ko mooy day taxaw am lu mu bëgg ne kat te PS nag kaa la kenn du ko jaay ci réew mi parti la bu ñu defar te parti mënu koo gën parce que mënoo topp ci koo xam ni instance ya nga am amu ko amul sax parti. Mhm. coalition boo leen bokk yaay toog xaar ko. gëmuma loolu man pièce bi ma bëgg a gëm dëggantaan. mais lan moo dañ ci parti socialiste lu fa dañ. ruu gi ruu gi. ru ruu mooy lan. ruu mooy loo xam ne bu dañee ci ni mooy suq bi ci biir am. parce que parti socialist bon ña fa toog bu ñu dajee. ñoo mën gouvernement bi ña toogal parce que fa am nañu formation macha allah. Mhm. xam nañu réew mi am nañu fu ñu jaar am na ñu démb. parce que tey ñii wër parti yeneen yëpp boo leen xoolee seen ñi ci bari quatre-vingt-dix pour cent ba bu ñu jógewul PS seen i bàyyi PS lañ jóge ndax PS mënoo fa jóge nag doon tuune waaye li ñu mujjee dal ci at yu mujj yi moom du PS bi ma xamoon. boo mosaan dugg bureau politique PS tey ñu ne sur l' agriculture la ñu wax ne sur la pêche da mel ni ku toog tey je vois très mal que tey li nga xam ni APR mënu ko wax wala tamit loo xam ni PS mosu koo nangu tey ñu bëgg ko nangul nit parce que le parti socialiste mooy moo moo tabax Sénégal parti socialiste ñi ko jiite woon ñooy père de la nation xaw ma lu ñu fi bàyyiwul de mais bàyyi nañ fi république kon tey parti socialiste boobu loo xam ni àndul avancement démocratie ak république waru ko prôné te ku bokk ci moom waru ko prôné am na loo xam ne àndandoo jaru ko nguur jaru ko post jaru ko. te tey jàpp nga ne ñi ngi doxalee noonu. oui bien sûr ba ma déggee ku bokk ci PS comme sama yaay Aminata nga di wax affaire statut particulier Dakar bi te Abdou Diouf rayoon boppam ak ñi fi jaar Ablaye Wade ñëpp ba tabaxoon loolu n'est-ce pas acte deux ba acte trois tey ñu bëgg ñu delloo gannaaw jaarale ko ci ñu bokk ci ñun dama naan. Euh, béyee na mbuus ce n'est plus le PS que je connaissais le PS parlait de l'approfondissement de la démocratie par la cadre de la décentralisation. absolument loolu la ñu gisoon. Abdou Diouf doon wax euh, moyen d'état mieux d'état. loolu laa xamoon ci parti socialiste te yaakaar naa ni ñi gëm loolu ña nga fa ba tey xëy na parti socialiste waxu ko mais ñu fa bokk te yor institution xëy na li ñu li ñu institution bi la doxee tamit wante man tey su ma nekkoon au conseil suñ ma ko doon wax loolu dañ may rey mais du ko wax. doo ko wax tey jii da nga ne ay valeur mu taxoon valeur yooyu yaa ngi gis ci moom ba tey wala gisatoo ko. bon gën naa ko gis nag. waaye seeti woon na la temps yii non non ñu ngi ñu ngi déggante régulièrement même bi mu nekkee Maroc. Mhm. gëj naa ko dégg rek daal ci ay yëngu-yëngoom ak yooyu. mais yaakaar naa ne ak fi mu jaar rek valeur yooyu dañu ci moom noppi na la kenn dégg ko. waaw loolu loolu est-ce que loolu du ko yàqal en tant que politicien. non man gënaluma man gënaluma mais. dafa benn pas daf na ma dafa mel ni ku siburu moom <laughs> déggoo ko yeyul yàbbiwul ci dara. Khalifa nag yàggee na loolu moom moo stratégie politique la. moom moo dafa am agenda boppam nu muy defee nu muy waxee ak ñu muy waxloo ak ñu mu dul waxloo ak fi muy waxee loolu yàgg na ku xam Khalifa Sall dëggantaan xam ne waxam gaawul. waaw fi mu jógee nag bon c'est normal parce que la mu tëdd ci kaso bi yàgg na la mu bind yàgg na la muy dox ci diggante bi yàgg na ak la muy defaraat xëy na daa peut-être fii dëkk bi loo fi wax. dëkk boo xam ne boo waxee lu tere ñii li ñu bëgg dañ koy def fii sëriñ see ñëpp ànd nañoo ñoom di lu ñu bëgg def dañ koy def. statut Dakar ak leneen ak leneen bu ñu xëyoon suba sax ni élection amatul élection amatul dañuy yooxu dóor lakkari mu seen ñi daw tëdd seen kër dese clavier yi di internet ak di émission loo ci mun dama ni la man nekk naa kaso rëbës mooy bi ñu naan luwaawu parrainage bi kaso mhm. rëbës la ma fekk fekk Khalifa Sall rëbës mhm. mais guddi googu parce que opposition bi ci commissariat yi lañu fanaan réew mi xëy suba ni tekk Idrissa Seck ñu ngi koy police quatrième. waaw yóbbu Sonko fële yóbbu kii fële yóbbu kii fële presque opposition bi fanaan ci ba fajar ñu libéré leen ñu dem comment nga dëkk bi teg kon ni te parrainage bi am na li ñu dal seddul. lan moo indi loolu. système de gouvernance Macky la wala Macky moo am doole. est-ce que Macky amul sax boole ci. parce que yenn yi man yenn yi du doole kese yenn yi noot ñëpp ñëpp ñëpp ba li nga bëgg toujours mooy mu jaam. man nee naa leen statut Dakar bi bu jàllee man leer na ma nii. fa ñu jëm député dañ koy nommé amul élection député dootul am dañ naan way pour bon pour des contraintes pour des raisons budgétaires je pense que li gën a gaaw mooy on va nommer des députés par rapport ngir critère sàngam critère fa lañ jëm parce que lu ñëw day jàll tey boo xoolee conseil économique dañoo nommé ñi ci yëpp presque ñëpp lañ nommé mhm. au conseil un bi xaw ma kii bi dañ ko nommé lépp léegi dañ koy nommé te loolu mooy wane na suñu démocratie dee na amatuñ démocratie actuellement boo demee assemblée bii sax ñu nommé woon ni sax a gën assemblée bii moom mooy jaaxal complètement foofu nommé woon fa ni sax a gën parce que man maay député diw man maay député diw xam nga tey bala ngay xam ne mesure bi moo impopulaire man la woon pap Alé président Sénégal est-ce que dañu wax CEDEAO mu nomeel ñu ko ah benn la bu dee président de la République mën na mën maire de Dakar ci lu ñu war a def élection kon waa CEDEAO président CEDEAO waruñu mën a nomeel chef de l'État parce ci lañ bokk parce que ni muy ñaawee ci xel te bu continuer nii lépp lu ñu naa dem élection nar koo pet dañ koy nommé. parce que da nga jàpp ne Macky wóoluwul boppam ci biir dakaar moo tax mu bëgg indi statut nommé maire bi. waaw parce que Dakar neexul wóolu sa bopp de trop. boo xoolee élection yi fi jàll. élection dakaar jigu leen parce que ñoom mosu am mairu dakaar bu jóge ci ñoom maa ngi rappelé wu 2009 boobu mbay Ndiaye ak Moussa Mbaye Ndiaye ci ñoom la nekkoon. Mhm. ci ñoom la nekk ma tey. mais boobu dekkal ngor moo amoon ba ñu demee ni maire de Dakar la ñuy xëccu te li gënoon a ñaaw laa lay wax dañoo nekkoon ci Benno Siggil Sénégal Macky Sall à Fatick faloo ci Benno Siggil Sénégal par solidarité ñëw ba dakaar ñu ni ñoom duñ ñu topp dañu fi indi liste dekkal ngor. Macky ñun socialiste yi ñu fal ko Fatick mais ñoom nangoo ñoo fal ci suñu candidat fii ñu teg Mbaye Ndiaye mbay Ndiaye benn conseil ñoom seen dekkal ngor benn conseil la am à la ville muy boobu Moustapha Diakhaté xaw ma bëgg-bëggu askan bi la ñëwee àndul woon ak ñoom dafa amoon listam moog Lamine Babu parcelle. ñëw mhm. bëgg-bëggu askan bi. ba ñu ñëwee Macky xalifa xamante nañu Khalifa daa ñëw rek nañu woy boo dama leen ko ñaan même Mbaye Ndiaye candidat la ci beneen liste mais adjoint premier adjoint au maire de Dakar la woon malgré que demoon liste boobu mais dama leen ko ñaan pour poste sixième adjoint au maire bi ngeen may ma ko ma jox ko Mbaye Ndiaye. loolu la leen Khalifa wax. générosité la loolu. après ñu tourné mu ñu ko noonu ñu defar nañu bureau bi ba pare. il a fallu que ñu jël Ousmane Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm bu AFP. Mhm. mu nangu nekk président groupe bi ñu jël poste boobu jox ko jox ko mbay Ndiaye bu APR pour mën a continuer am bureau hôtel de ville ak oto ak carburant. pour mbay Ndiaye mën a am oto ak carburant. waaw donc yooyu yëpp dox na fi moo tax politique bi léeg-léeg reetaan sax la may. reetaan la may daal di def. mais lu tax souvent ñuy ñuy ne Bamba na ko Bamba dafa mel ni ku jege makki sàll mais man Macky Sall du sama ennemi ah Pape Pape damay politique mais bon du sama ennemi dafa bëgg lenn ma bëgg dara. mu jaral ko xeex bu ko neexee tëj ma kaso ci ay yoo xam ni kenn gëmu ko mais quand même man du ma aw man bëgguma ennemi man bëgg naa ñu ñu nekk ay adversaire politique mais ma ñu nekk ay ennemi Macky am nañu relation yu baax bu ñu gisee dañuy nuyoo. ka frère hmm. jabar ji noonu. APR bu sañoon bu sañoon nga ñëw ci moom. waaw waaw waaw kooku am ah, yónnee na la ay nit pour loolu. du moom kese kañ du parti yëpp la. waa mais moom moom président de la république de bu sañoon nga ñëw ci wetam. waaw waaw kooku bien sûr parce que tamit ku am ku mel ni man sawet doo wax dara parce que man mën naa sama boor te yaakaaruma ci yow lu bari man pour élection yaakaaruma ci kenn boo élection jotee na ku ne kii mën naa sama boor kooku moom yaakaar naa ne ko xool fi ma jaar xam ne mën naa sama boor man yaakaaruma ci parti yaakaaruma ci nit ci sama liggéey laa yaakaar ak ña ma àndal démb ak bërki démb ak ak ñaan yi mais yaakaar naa ni loolu moom mën naa ko ndax ministre bu ne booy nañ maag moom Medina mais na woon fa woon rek te tey la gën a doy waar sax tey tey élection yi su ma sañoon mu nekk suba nga xam. élection locale yi. Eh, su ma sañoon mu nekk suba. da duma ñoom ñëpp. barke ay Cheikh Ba Messi. ñoom ñëpp da nga leen di duma. xoolal du ñu gis dara benn bureau de vote mënuñu ko gagné élection yi passé législative yi passé soixante-treize bureau de vote laa gagné bii damaa bokkul comment nga épuisé.